Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Infrastructures, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre nga permettre ñu nuyu parmi vos collaborateurs euh, di nuyu aussi le ministre chargé des de fer Monsieur Pape Amadou Ndiaye di nuyu aussi le directeur du FERA FERA moom Monsieur le ministre dañuy wax ne ñun les collectivités territoriales di Sénégal mun naa wax à leur nom ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy am auprès des collectivités territoriales monsieur le ministre ñuy nuyu aussi ki nga xam ne moom mooy directeur CETID du nuyu directeur de transport aussi waxoon naa ko ci disponibilité am parce que amoon nañu am problème euh, ñëw wax ma ko moo ko ko mu regle ko à la minute qui suit kon loolu ñu ngi koy remercier monsieur le ministre aussi ñuy nuyu aussi sa secrétaire général ñu ngi koy jaar de passage parce que dégg nañ dafa am dëj nuyu le directeur de l'AGEROUTE monsieur le ministre man li may wax tey rek nee naa bu ñu doon doyal wax ne jërëjëf bu ñu doon doyal dootuñu laaj dara ndax le président Macky Sall nag li mu def en terme d'infrastructure def ko ci li nga xam ne mooy désenclavement sur ñun surtout ñun ñu dëkk ci monde rural bi yaakaar naa ne desalatuñu dara waaye monsieur le ministre li ñuy wax rek nee naa Sénégal président makisal da ko fekk foo xam ne fépp doon métti kon tey jafe-jafe yi bëri woon na lool loo xam ne fekkoon na ko tey rek benn multiplier na ko par six en terme de désenclavement li mu def ci département Kaolack ñu koy jaajëfal te mënoon naa yem rek ci li mu def waaye def li mu def ba pare ñëw ne damay seetaan li nga xam ne santaane woon nañ ko ndax def nañ ko ni mu waroon ba xam ne li des tamit mu jël ko budgétiser ko ñu mun ko war ko mun ko defaat 2024 2026 monsieur le ministre xam naa ne jafe-jafe Kaolack yooyu si li nga xam ne mooy plan bi nga xam ne tey moom la def si tournée yi nga xam ne moom la doon def muy tournée bi nga xam ne mooy tournée économique conseil des ministres conseil du présidentiel décentralisé kon loolu je pense que du ñu si wax doléance yooyu parce que liir ngeen ko suñ kanam le ministre wax na ko jafe-jafe yi nga xam ne moom la am département Kaolack lu bëri mais ñuy remercier feeraa nag di wax ne li nga xam ne moom mooy la route tey euh, Touba Sanokho euh, Daaru Mbiteyeen euh, léegi mu commencé mais ñu bëgg rek route boobu yegg Bandraame Escale incha allah rek ba su paree monsieur le ministre désenclavement Kaolack parce que tey Kaolack wax nga autorite bi am na tronson yu bëri yoo xam ne autoroute bi na ko jël en compte mais monsieur le ministre foofu may wax rek ne Euh, désenclave kii bu ñu fa def euh, euh, contournement bu ñu fa def rek day ñëwaat biir Kaolack te Kaolack dañu am jafe-jafe embouteillage si biir Kaolack moo tax ma wax proposé woon la route bi nga xam ne day jóge Passy jaar la commune de Ndiédiène génne li nga xam ne mooy la commune de Ndofane Thiaré dem Mbirkilaan monsieur le ministre boobu dina désenclaver trois régions ak li nga xam ne dina ëpp trentaine de commune yoo xam ne dina fa jaar kon monsieur le ministre ñu nga bàyyi si loolu xel mi nga xam ne mooy Lamaram Ndiédiène Lamaram Ndiédiène Passy la mais monsieur le ministre cette route là depuis 1962 la wax bëggu nañ c'est vrai que gis nañ ko li nga xam ne moom mooy conseil présidentiel bi bokk ci le plan 2024 2026 mais bëgg nañ lu mu gën a gaawee mu commencé monsieur le ministre des finances nag la ñuy waxal mu dimbale ñu ci tur bi nga dugal am loo xam ne loo dugal si li nga xam ne moom mooy 2023 bi balaa fin 2023 parce que na mën a jël en compte lu bëri ñu leen di remercier leen jaajëfal bu baax merci beaucoup.